mooy kat arbitre nenañu dañuy grève bëgg si ah, ci loolu wax li tax grève assurance combat parce que euh, combat aussi frais organisation bi ni mu toll si lañ leen sans euh, dépenser pourcentage waaye assurance moom képp kuy def fu jëm mbooloo am war nga am assurance si biir loolu ñoom waxtaan nañ si ñoom seen biir man nag dama ne si toor mbirum làmb mbirum privé la CNG du mooy tëgg làmb ay promoteur ñooy tëgg làmb xamu leen fan lañu utee xaalis bay tëgg làmp balaa ngeen di jël décision grève war ngeen bu bind CNG yëgal ko ñu xam ne kat jour tel le 10 wala le 20 lamb du am parce que arbitre nenañu dañuy grève non xam nga yeugal ak bind du ben man bu ma waxee loolu si toor ak ñeneen ñi tam wax loolu malik Ñing ñom mbey geey ña fa nekkoon ñëpp ñëpp wax loolu ñu bari wax loolu si lañ ne mom bu mu jëlee kaddu mu ne kon mu ngi jéggalu erreur la ñu ne ko nag comme que erreur la ñu ngi lay ñaan ngeen bàyyi lépp tey la trent ak le premier comme que làmb yi am na ba pare promoteurs yi ñoo jëlee seen xaalis pour tëgg làmb xamoo ndax dafa leb xamoo fu mu ko jëlee ñu annulé làmb yi day metti ñu ñaan leen njekk man mii woo naa Malick wax ko ne nañu bàyyi lépp ba altine ak talaata ñu xool li ñuy waxtaanee ma ñaan leen njekk googu may ñu ko ministre des sports woo na ma ma expliqué moom it woo na leen ñoom defuñu ko parce que tey nit tamit wax dëgg yàlla da ngay may cër ñun tey bu leen ñaanee yëguñu ko war ñuy mën a may mais loolu yëpp tamit ah terewul li leen dal metti na ma man am na ñuy wax ne dañ leen jaay doole na am na ñuy wax ne am na ñuy wax ne CNG dafa violent te rafetul. Wa parce que moy président CNG. wa moy parce que moy président CNG suis président CNG lu am it dañ président la. man ak CNG ak Alinsar. Je suis wax te yalla tax la wax ak CNG moy nañu respecter tey respecté nañ ko ñu ngi woote réunion am na comité directeur am na lépp parce que ministre Matar Ba it ba ñu yàggee wax loolu xamal na leen kat arrêté bi lu mu wax de leen ko respecté léegi nag lii am am na dañuy ñaan seen CNG mu teggi lii ñu waxtaan moo gën ñu si ñaan ministre des sports ak képp koo xam ne bokk nga si làmb nga siy kilifa nga def si sa warugar mooy ñaan ñu ñaan CNG teggi lii parce que aussi Sitor yàgg na ak ñoom di liggéey ñeneen yàgg na ak ñoom di liggéey lii moom vraiment lu làmb dafa toll tey ñu booloo.